man suma impression mooy comme si leneen lu ma gis mooy yoon def na liggéeyam parce que jéem na saytu xam kii deful kii def na wala deful comme man bokk naa si yoo xam ne defuma dara te tooñ nañu ma ñoom war nañu xam ne que citoyen la comme tout les citoyens dama damay ñaan justice tamit xam ne que képp koo xam ne euh, tooñ nañu ko mu ñu xam ne que kii dañ ko tooñ euh, teg ko ay ñeenti at si kaso ba pare bàyyi ko joxuñu paas sa joxuñu ma bu may ñibbi. te man xam nga rek paysan laa ci loolu laa doon yëngatu te man exploitant comme ñëpp la mais peut-être comme ma xeet ni ma nekkee joolaa moo tax ñi bàyyi ñeneen ñi ñu téye ma man loolu laa gis foofu si procès bi. man jot naa ci kayit boo xam ne bind nañu foofu noonu lii ma comme dama xamu jàng naa tuuti nasaraan bu ñu ma joxee dama njëkk a xool lan lañ fa bind ba ma gis ne euh, noonu lii la. waaw boobu moom mu ngi si maa ngi ko yor signé naa ko maa yor suma kër. lu may xaar mooy ñi bàyyi leen parce que ñi gën a bëri dama xam te keroog bu mu amee am ñu bëri man gis naa leen nii man Ziguinchor laay jógee dem foofu. waaw mënuma fekkee ñeen ñi gën a bëri man gis naa leen jour même jour bi bu may nekk si biir dëkk bi. man exploitant laa dama la ne c'est parce que xeet bi laa bokk moo tax ñi téye ma mais ñu ma bokkaloon yëpp Médoune Cissé ñi ñi sauvé man su dee Médoune bu dul Médoune man dee naa parce que moo ma sauvé. mais man dañ ma jàpp parce que joolaa rek ñu dugal ma rek mais medul ñi bàyyi ko koo xam ne moo gis ki gis si boppam moom dañ ko bàyyi. man sama kër lañ ma jox convocation ma dem wuyu parce que man dama demoon da pour man nit un citoyen boo defee liggéey citoyen boo ñëwee war nañu la mën a déglu si xel la ñu xam ne que kii citoyen bu ñu jëlee affaire par parlo wala xeet bi wala xeet bi man bu ñu ma joxee convocation j'étais fièvre pour ñëw wuyu parce que dama xam ne que lu ma def du du jombul citoyen waxuma la amul mais citoyen yu koy def bëriwul citoyenneté du caagane def lii wala lii nii boo gisee ay tolof tolof sa moroom yi nekk tolof yi nga jaay sa bakkan si loolu loolu mooy citoyenneté man ñun la ñuy jàngee école mais dama gis ne man lu ma def loolu lii la ma ci fekk mais loolu du tere sax su ma gisaatee suma beneen morom mu nekk si jafe-jafe dama koy def même su dee dañ may woo ma dem di may tëj parce que dama gëm ne la nit su sa morom bu nekkee tolof tolof yaa ko war a waral ne yoon bi bi baaxul lii baaxul. ñun dañu doon dugg si biir àll bi ñu gis gars yi léegi ñu ma informé nit ñi pour bu ñu bañ a dugg loolu moo tax ñu jàppee ne man dam ci bokk. ñu tëj ma quatre ans te loo xam ne dama doon def affaire citoyenneté man comme mënu ma jot si ministre bi man su ma sañoon président ça veut dire que président Macky Sall il faut ñu wax ko ko li xam dëgg dëgg dëgg dëgg parce que am na ñoo xam ne président ñëpp la man ba léegi sax yi ñuy wax ni man gëw ma ko man li may gëm ne man citoyen comme ñëpp la kon dañu war a yemale ñëpp waa tooñ nañu ma yoon xam na du ma juriste mais yoon yoon xam na nit boo ko tooñee mu leer na leen kii set na wicc amul benn yéene sa aw ma ko pour def nit ku lu bon ganaar sa duma ko rey kon suñ ma tooñee yoon xam na fan la ñu war a lan la ñu war a def waaw man sama pap du 87 ans la am ñu téye ko foofu ba mu dee ci kaso bi sama pap mooy chef de village bi koo xam ne ñun ñu ngi Ziguinchor fii xamul bopp bi xamul genn bi loolu mooy demee mais man je je je respecte toujours les institutions sénégalaises dama gëm ne liñ ma tooñ war nañu mën a xam ne ki kii dañ ko tooñ. man sama papa bu mu deewee bu mu gaañee sax téléphone sax dañ ma ko teree wax ma ba tey bu ma génnee laa dem gis fu ñu ko denc kon loo xam ne dafa metti si xol waaw du ma koy nangu di wax sax parce que dafa ma dafa ma egg foo xam ne. fàttali internautes yi man bokkoon naa si benn mouvement bu ñuy tuddee vision citoyenne daanaka société depuis le début jusqu'à présent ñun ñu ngi si xeex bi parce que dañoo n'était convaincu ni tey jii di bés bu nekk ni su amee rek pratiquement euh, lu ñu lu ñu daan mëbët si yëf yi lu ñu daan xaar si yëf yi dina am daanaka tey mooy sixième jour euh, procès bi on est confiant on est serein vu que le droit est en train d'être dit motax ñu ne tay ji ni confiant nañu si tout se passe comme prévu su fekkente ne walum yoon la c'est le droit qui se dit ces gens-là finiront par trouver la liberté bo xamantene mom lañu a ñu parce que so gisee tamet euh, ñu bëggoon yefi yi yegg si fii ni fi moy euh, dernier recours bi té suñ fi yegg si rek lepp lo xamantene ñun mom lañu njot ni dinañ ko léral fi comme dañuy ñëw pour out dégg fi ni dinañ ko amé fi fi nga xamante ne moom tribunal euh, régional bu Ziguinchor si chambre criminelle bi ni xam nañu ni si tout se passe comme prévu dinañ leen bay té dinañu dem retrouver sen famille comme niñ ko kié parce que danaka depuis le début jusqu'à présent so gisé ñu dugg ci xeex bi on était convaincu de leur innocence motax ñu bëggone yëf yi yegg si fii tey ji depuis buñ commencé ba légui soo seetee sax yef yaangi dox normalement comme niñ ko bëggé ñun ñëpp laa la wax ñun ñëpp muy police muy gendarmerie muy avocat muy procureur daanaka su nous déglu nit au minimum ne serait-ce que nañu respecter say droits quel que soit le fait quelle que soit la sentence quel que soit loo xamante ne moom lañ la tuumal dañu jàpp ni jusqu'à présent prévenu lañ la wax manam dañuy supposé ni yow ya def yëf yi wala defo wala xam nga si dara donc au minimum ñu ñu ñu ñu jox la ben avocat bo xamantene ne lay téwal wala ñomit ñu liral la say droit né la eh, est-ce que xam nga ni nar nga am avocat wala nar nga wo avocat pour mu déglu la.

ñu ngi ñaax ñëpp ñoo xamantene ne ñoo ŋànk yëf suñuy su déglu nit ne serait-ce que moi en présence d'un avocat wala ñu it kenen ko xamantene un conseil wala quelque chose quelqu'un qui nga xamantene mën na déglu wala mën na la traduire mu don un témoin des faits yow li nga wax wala li nga jëf danaka prévenir képp ko xamantene wo nañ la à la barre fii nee nga buñ lay déglu amoon euh, conseil wala amone avocat bu fa taxaw wala dañ la xatal motax yow nga wax wax bobu nonou constat buñ fi def bo xamantene toutes les personnes qui ont été interpellées woo wonañ la ci baar ba daanaka loolu la wax manam day ñëw ne man li ma waxoon dégg la da man mako waxon mais li ak li mo taxon ma wax ko parce que dañ ma metitel dañ ma toroxal motax ma dem mais en certain moment ma wax ko benen fait bo xamantene tamit euh, nar nañ ko souligner moy ñom yëpp ku nekk ku ñëw day ne man dañ maa dañ maa tegal liste ab liste du man maa xëy ma ne diw ak diw ak diw bokk na ñoom ñoo ma tegal liste di ma waxloo daanaka dañ ma waxloo ñu jëfloo ma. loolu tamit constat boo xamante ne def nañ ko te ñu ngi ñaaxaat encore une fois képp koo xamante ne yaa ngi si yëf yi suñuy déglu kenn nañ la may. au moins ne serait-ce que un avocat mu toog ak yow wala un conseil bu toog ak yow mu expliquer la d'abord comme ça véracité sa procès verbal yi dina gënoon a am doole waaw euh, xam nga bu ñu nekkee ci wàllu criminel euh, ngay layoo te amoo avocat euh, yoon dafa ne état bi dina la jëlal avocat boo xam ne mooy taxaw sa wet lay la la loolu moo ma boole ak aadama jéme ma taxaw fii tey ci procès bi ngir layal ko yàlla def na déglu nañ ko jeudi biñ ko dégloo quand même ku fi teew ak ku ñu ko nettali yëpp dinga xam ne. wax dëgg Alam li ñu ko téye doy na trop ndax koo xam ne euh, bokkoo réunion ba nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom la ñu mbir mi euh, ñi ngi jàpp ne ñoo def mbir mi ñoom ak yow xamante wuñu ay nit ñëw taxaw ci kanam tribunal bi ne bés banyu ñu jàpp ne nit ñi ngi ci def ñaawteef yooyu yow mi ngi la fekk sa tool ngay bay te bés bu ba weneen waxtu wa pare da nga wàcc ñibbi sa kër donc kooku wax dëgg am nañ bu chambre bi demee bay toll ci wàllu àtte dinañ ko setal may ko liberté mu ñibbi ci ak njabootam dellu ci activité am na tey loo quand même munuñ ko wala ñu naxasaale ko parce que li ëpp ci ñi nga xam ne déglu ci mbir mi dafa am lu ñu wax loo xam ay fitna ak ay ñaawteef yoo xam ne dañ ko teg seen kaw pour forcer leen ñu wax loo xam ne méngowul ak liy dëgg euh, ñi ngi jàpp ne loolu ci état de droit warul am état bu avancé ci démocratie ak état de droit bu mel ne Sénégal loolu ñaawteef la goo xam ne ñun ñëpp dañu war a lënkaloo xeex ko ndax kat liberté amul prix amul njëg liberté amul njëg et liberté bi protéger man rek protéger wu yow dafa protéger citoyen bi ku mu munti doon ak fu mu munti doonee boo amee jafe-jafe ak yoon dañ la war a sàmmal sa liberté boobu mais di fitnaal nit di ko bundu xataal ngir mu wax loo xam ne méngawul lu dëgg loolu da jàpp naa ne day yàq liggéeyu tribunal te luy yàq liggéeyu tribunal ñu ñëpp dañoo war a méngoo xeex ko ndax encore une fois li ñu fi dajale mooy dëgg gi ñol ñu xam fu dëgg féetee képp koo xam ne bi dëgg gi ñolee dañu jàpp ne taq nga ci yoon def liggéeyam teg la daan yim la war a daan mais képp koo xam ne akulaay taalaa xam nañ ñu bokkoo ci it ñu bàyyi la nga ñibbi. quand même euh, procès bi ñu ngi ci sixième jour tey mais wax dëgg yàlla dañuy sant di rafetlu ni muy doxee boobu léegi euh, président bi macha allah wane na xarañteef ak man liggéeyam goo xam ne amul benn jafe-jafe. boo xam rek am ci procès bi te waxtaanul ak ñun ba ñu trouver benn solution euh, procureur de la république aussi wax dëgg yàllam euh, yombalal nañu mbir yi parce que moom mooy suñu peut-être interlocuteur direct ci yenn yi mais lépp loo xam ne jàppandal la euh, yombal na défense bi avocat yi nga xamné ne ñew nañ fi pour la défense wax deug yàllam professionnalisme ak compétence bu mat seuk lañu woné wone goo xam ne boobu léegi euh, da nga koy gis sax ci bu pose amee ni ñuy saafante ak client yi nga xam ne li nga xam ne moo fondamental entre un avocat ak son client mooy confiance wóolute googu da ngay gis ne am na suñu diggante ak ñi nga xam ne moom la ñuy défendre ñoom li ñu yaakaar tey pour euh, ñu génnee la ci tuuma bi mel nii ñu ngi ko wekk ci avocat yi te avocat yaa ngi koy doxal doxal bu mat sëkk. xam nga nit bu ñu yëkkatee tuuma teg ci kawam. dafay jaadu mu xam dayewu tuuma bi mu xam lan mooy tuuma bi lan mooy wundu tuuma bi te nit nag bu fekkente ni làkk benn làkk sàngam ci nga mën a communiquer ci nga mën a comprendre yoon dafa am obligation jël koo xam ne moo lay tekkil li nga xam ndax pour nga mën a laykat pour nga mën a défendre tuuma ñu teg sa kaw foog nga xam lan mooy tuuma bi comprendre ko suñ ko waxee ci tubaab te déggoo tubaab doo ko mën a comprendre donc loolu lu jaadu la li nga xam ne peut-être ñu ngi koy ñaawlu mooy que ni loolu noonu ni mu jaadoo tey ci euh, kanamu attekaay bi noonu la jaadoo ci kanamu ñiy enquête donc depuis gendarmerie bi ñu jàppee nit ñi waroon nañu indi koo xam ne day làkk li ñuy làkk mën a tekki liñ liñ la tuuma ci làkk bi nga dégg pour nga mën ci defendre ndax da ngay gis ne yenn euh, incompréhension yi am yëpp jiix jaax yi am yëpp mu ngi dikk ci buñ la ne yow yaa wax lii nga ne déet man kon dañoo mal traduire li ma wax mais waxuma loolu lële laa wax am nañ ci exemple bu ndaw rek ci diggante ndékki ak añ kii ne añ laa añ laa wax ñu ne ko noonu ndékki nga waxoon mais xëñ na dañ ko ko traduire loon ci soose làkk bi mu dégg pour mu mën a wax carrément ne moo bii ci soose mooy tekki ndékki tekkiwul añ enquête à charge ak à décharge mooy lépp loo xam ne dafa jàpp ne day dooleel tuuma bi da koo war a gëstu mais lépp loo xam ne dafay teggi bi da koo war a gëstu te liy teggi tuuma bi li nga xam ne peut-être ay élément la pour teggi tuuma bi mooy ki ngay tuuma xam li nga koy tuumaal ki ngay tuuma koy tuumaal buy wax ak nga xam li muy wax ak yow il n'est pas évident bi dégg na Joola wala dégg na Soose wala dégg na Manjak alors que ñi fi jàpp ñëpp pratiquement ci langue boobu la ñuy exprimer woo donc suñ fekkee dañ lay tuuma ci làkk boo déggul di la déglu ci làkk boo déggul pour mu am jeexi jaaxa day yomb moo tax ma moo xaal wax ko bamtuwaat ko depuis enquête préliminaire bi la ay témoins waroon a am parce que yoon moo ko prévoir boo munta liir ci français dañ la war a traduire liñ la tuumaal lecture et traduction pour nga mën ci tontu.